billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbih wa man tabiahum bi imaanin yi ñu ñuy ñu ngi leen di nuyu di leen wax taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi kilifa gu mag gi Cheikh di ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ba mbooleem lu mu yéene liggéeyal ku tedd ki sunu borom defal ko ci tawféq waaye di nuyu tamit kilifa ak njabootu sëriñ Abdul Ahad di sëriñ Sidi Mohamed di ko ñaanal tamit moom it mu yàgg fi ba mbooleem lu mu yéene liggéeyal waajuram mu tedd ba sunu borom defal ko ci ndam di beral nuyoo tamit ak siyaar sunu kilifa gi ñu toogal tey. muy Serigne Sidi Mouhamad ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada ñu koy siyaare di ko nuyu ci turu daairatu xidmatul xadim bi nga xamante ni moo lëkkale sëti Serigne Abdoul Ahad yëpp ñu ñëw fii ci seen tur comme ni ñu ko baaxoo defee rek ci jamonoy màggal Serigne Abdoul Ahad euh, jotaay yi nga xamante ni ñi ngi koy amal di ko jëmale ci jëmm ju tedd jooju di Cheikh Abdoul Ahad tey jii nag Eh, ñu ñëw fii ci sëriñ Sidi Mouhamed di mboroom xam-xam di gëstukat eh, rawatina nag bi nga xamante ni conférence bi nga xamante ni sëti sëriñ Abdoul Ahad ñu ngi koy amal ren ñu tuddee woon ko sëriñ Mourtada ñu ñëw fii ngir bëgg rek mu defal ñu benn waxtaan ci sëriñ Abdoul Ahad eh, rawatina ci digganteem ak Cheikh Mouhamadou Mourtada radiyallahu taala anhuma kon sëñ bi dañu lay bàyyi nga nuyoo ñëwal ñu ci waxtaan woo ci diggante sëriñ Abdoul Ahad ak sëriñ Mourtada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 julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokki julli yi ñuy seetaan yépp ak mbokki taalibe yi di leen nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi Mohamed sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoulahat mi nga xam ne moo nekk ci njabootu waa kër sëriñ gépp ak mboolem njabootuk sëñ Abdou gépp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bi di leen ci siyaar di ci jagleel ab nuyoo ba tey euh, waa daayira xidmatul xadim bi nga xam ne ñoom ñoo lëkkale daayira waa sëti sëñ Abdou yi ñi leen di nuyu bu baax ñoomit di leen ci ndokkeel di leen ci sargal di wane tamit sun mbégte ci seen taxawaay rawatina ren jii nga xam ne dañ ko jagleel sëriñ Murtada ca loolu nag di jéego boo xam ne nii li muy tegtale rek mooy gën a doxu mbokk ak sàmmu ak mbokk ak tamit nit ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ginnaaw bi muy set yi nga xam ne lu bari fekk wuñ ko woon ci diggante boobu loolu gën leen leer bañ gën a xam mbokk gi ni mu woon ak li leen boole woon ak niñ ko jàppe woon ak niñ ko sàmme woon ak niñ ko doon rafetale kon loolu di lu am solo loo xam ne nii euh, day lu am solo loo xam ne nii ñu ngi koy rafetlu bu baax ci ñoom ndax lii day wane na rek ñu ngi topp tànki waajur yi ak tànki maam yi ñu ngi leen ci sant bu baax. ok ok sa <coughs> Euh, rafet lu baax kàddu ubbeegu am solo kooku xam naa liñ euh, bëggoon rek nga defal ñu ci waxtaan junj nga ko léegi ci sa biir wax muy diggante Serigne Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadul Mourtada. waaw ñu ngi lay sant bu baax léegi nag xam naa diggante boobu moom dafa doon diggante bu am solo ndax Serigne Abdoul Ahad euh, seen diggante daanaka doy na ci sëkk muy bokk giñ bokk sëriñ Touba ñu bokk wenn waajur daanaka lool rek daa dawi sëkk aw ak ak mbokkoo ak jaxasoo ak lépp daanaka lan luñ mën a waxaat rek daanaka ak guddal la rek waaye ñoom ñaar yàlla dalee na boole woon ba ñaari kër yi tamit foo ci dem boo ñëwee kër Sëriñ Mourtada da nga fi fekk ay sëti Sëriñ boo demee kër Sëriñ Abdou Lahad da nga fa fekk ay sëti Sëriñ Mourtada kon loolu ak jaxasoo mënu ko weesu waaye balañoo dugg ci waxtaan wi di leeral lenn ci diggante boobu dañuy bëgg njëkk a wax tuuti rek ci Sëriñ Abdou ci li nga xam ne euh, ay jikko yi nga xam ne daal ràññiku woon na ci lool sëñ Abdou xañ na nag man moom li ma ci fekkee bëreewul noonu xañ na li ma ci xam tamit li ma ci xamut moo ko ëpp ci diggante sëñ Abdou Lahad ak sëñ Mourtada waaye ku mel ne sëñ Mourtadaam sëñ Abdou Lahad wala sëñ Abdou Lahadum sëñ Mourtada ku demoon ci ñoom yaakaar naa ne dund nañ ci lu bari fekke ci lu bari man cee seere tamit lu baree baree bari loo xam ne yaakaar naa man li ma ciy mën a wax ci li ma ko mën a sukkandikoo mooy ci lu ma gis ñu bind ko ak lu ma gëstu ci lenn ci mag yi nga xam ne daanañ ànd ak sëñ Mourtala daan fa dem ak lu tuuti ci loo xam ne nii jot naa ko cee fekk ci loola tamit mu doon loo xam ne maa ci tegoon sama bët bu dee kon euh, sëñ Abdou Lahad kon dafa doonoon koo xam ne nii dafa ràññeeku ci jikko yi muy dafa doonoon ku ràññeeku ci ak njàmbaar doonoon ku ràññeeku ci fulla doonoon ku ràññeeku ci dëgg maanaam dëgg rek la la la xamoon moom la doon doxal mu jaraloon ko lu ne ba dafa meloon ne dafa jëloon lu mel ne xas yi dëgg Matlabul Fawzayni tegoon ko ci kanamam nga xam ne lépp lu sëriñ bi bëggoon rek ñaanoon ko ci dëkk bi rek mu fexe ba ba mu fi am lépp lu bëggutoon mu am fi tamit mu taxawoon ci taxawaay bu sëkk ci jële ko fi doonoon tamit ku ràññeeku ci bëgg alxuraanul karim manoon ko lool tamit doonoon tamit ku ràññeeku ci ñime responsabilité xamoon tamit lan mooy ay responsabilité doonoon tamit ku am yërmande ràññeeku ci yërmande lool yërmande joo xam ni xam naa ci kanam mën naa am danañ ci agsi waaw doonoon tamit ku ràññeeku ci bëgg sëriñ Touba sëriñ Touba jaraloon ko lu ne ba lool tamit dafa feeñ ci mu bi bi ko sëriñ bi bàyyee ndono li mu nekk xalifa central de mu amoon taxawaay bu yéeme ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi bàyyee woon ci taalibe yi ak ci njabootuk sëñ Tuubaa gi ak ci jullit ñépp bu dee ci taalibe yi ak ci seex yi dañuy gis ne kenn ku ci nekk ci ñoom seqoon naa ñoom moom loo xam ne nii boo demoon di waxtaan digganteem ak kooku ak sëñ day mel ne sëñ Abdu Laat kooku rek la seqaloon moom rek la daan jëflanteel ba tey boo ñëwee ci diggante digganteem ak njabootu sëñ Tuubaa gi comme niñ ko waxee woon mooy dafa doonoon koo xam ne dafa xeroon ci sëñ Tuubaa loolu nag moo taxoon moom it mu teg leen foo xam ne jàppeloon nu kawe nu nu yéeme noo xam ne ci doomi sëñ Tuubaa yi képp koo ciy waxtaan moom it digganteem ak sëñ Abdu Lahat jàpp na sëñ Abdu moom rek la loon moom rek la amanteeloon moom rek la kiyoon loolu lépp kon day wane ab taxawaayam bu bu yéeme bu dee digganteem ak sëñ Mourtada nag doonoon tamit diggante bu ràññee ko comme tey ci la ñuy waxtaan mu doonoon diggante bu ràññeeku lool mu doonoon ko am ak xir ci sëñ Mourtada doonoon ku ko wormaal tegoon eh, fonkoon ko lool joxoon ko cër bu mat sëkk ngir sëriñ Touba sëñ Mourtala tamit moom it bëggoon ko lool tegoon ko fu kawe wormaaloon ko lool daan jëfe ay ndigalam tamit bu baax a baax a baax a baax ci loolu sëriñ Abdou Lahad taxawaay bi nga xam ne moom la amoon ci njabootu sëriñ Touba gi tax na nee nañ bi nga xamee ne bi muy doog nekk xalifa général de Mouride lam njëkk a wax mooy man day wërsëg wii nga xam ne moo may dikkal njëkk may nekk xalifa général daawuma dikkale nii kon nag loolu day wane ne lii day moom ma ko man dong maa njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ko bokk nga xam ne kon moom noonu la gise woon ba day gënaa tamit lépp luñ ko masaan andil ci ay xeewal ci ay dugub ak ay ceeb ak lu mën a doon ña koy andil naan leen dem leen yetal ma ko ñu bokkal Sëñ Tuubaa ko defee bu desee ngeen andil ma ci lu mu barkeeloo nga xam ne loolu kon doon mbir yu yéeme yoo xam ne nii lu lu lu doy waar la nga xam ne digganteem ak sëñ Mortala nag sëñ Mortala tamit tegoon ko fu kawe foo xam ne jagleeloon ko bis boo xam ne nii ci at mi sa su masaan jot rek da daan dem këram euh, muy bisub ni su Saabaan nga xam ne ci kër Sëñ Abdu la ko daan nekk loolu moom lu ma fekke la loo xam ne nii moom booba ca daara ja laa daan jóge booba gone laa nag waaye booba mu la la ma fa daan gis ci ay teraanga ak nam ma mu doonoon lu ma marqué di lu ma lu ma yéem nga xam ne sëñ Mortala bu fa masaan ñëw dafa daan am ay ñetti fan nga xam ne ngan googu moom daanaka ñëpp ko daan yàkkamti nga xam ne boo àggee da nga fay gis daanaka espace bu yaatu boo xam ne ni werandaay bu yaatu boo xam ne lépp ay façon booli façon ñam yu ne nga xam ne mm, xer gum xeroon loolu du nag doonoon lu ma yéemoon ci jamono jooja nga xam ne ñi ngi nettali ne sa sëñ Murtada am na bis boo xam ne dafa génnoon demoon Casamance war yàlla dogal xam naa xelam xawoon a génn ci bis bi waaye ba mu ko fàttalikoo rek daane day wàññeeku ndax bis bi dee Sëñ Abdu Lahat la ko jagleel nga xam ne nañ ba muy jóge Sigansor ay timis jot na nga xam mu topp guddi gi daa di nga xam ne booba bi muy agsi dégg naa trois heures de matin jot na te loolu Euh, booba daanaka jumtukaay yi am nii ay téléphones yeeg mën a jokkoo geeg yi yëpp amut daa yombut kii yewutoon nga xam ne nee nañ bi muy agsi daal di jubal belal fekk fa maanaam ba mu àggee ndeke Sëñ Abdulaay tamit waajal ko lool lépp lu ñu war a defar ci berndeek ci kii ñu ngi ko defaroon di ko xaaru nga xam ne dafa waxoon taalibe yi ne leen bu leen nelaw nga xam ne biñ ñëwee ñu andi teraanga yi ba biñ xëyee sëñ eh, ba ci yor yoor gi sëñ Abdoulaye ñëw di ko seet si koy seet si fekk ko muy julli yoor yor di di di di naafi la mu daal di delluwaat daal di woo taalibe yi mu àndaloon daal ne leen eh, daal ne leen biig de ñë ñëwoon naa waaye damaa fekk ngeen di nelaw yéen ñëpp xam naa da ngeen a sonnoon leen waaye nag. dama leen a bëgg a laabire lenn li ma leen bëgg a laabire mooy jëmm ji ngeen àndal day dama bëgg ngeen xam ne dafay àndaale ngërëm ba noppi liggéey yokku ca kon nag ci loolu aw doj la woo xam ne bu dalee ci seen kaw da ngeen gaañu moom bu dalee ci seen kaw ngeen gaañu kon nag dama bëgg ngeen xam ni ngeen di nekkee moom nga xam ne ci biir loolu bim ñëwaatee ca kii fekk sëñ sëñ Mortada naafile ba pare dañ daa ñëw ànd ak moo xam nii daane ko boobu taalibe yaa ngi toog mu ne mu leen mu ne sëñ Mortada ne ko eh, eh, fii day sa taalibe baay rekk fi ne nga xam ne moom ndeysaan daanaka dafa fi mu leen tegoon daal yéeme na nga xam ne loolu nag doon lu yéeme nee nañ baneen bi ci desaat benn bi sëñ Mourtala dafa mas a ñëw ci moom bi mu ñëwee ci moom ñu waxtaan ba ba ba ba génn mu koy gunge ba ca bunt ba ñu sëñ Mourtala dugg ci oto bi ba dem mu taxaw ba seenatul oto bi nee mu daal ne taalibe yi mu dendaloon daal ne leen man day yéemaat naa Sëriñ Tuubaa ndax li tax ma yéemaat ko day gën naa koo yéem li tax loolu day mooy. damaa xam ne sëñ Mourtada mi li fi dund ak sëñ Touba ci ay at bariwut te bu waxee wala mu jëf day moom ña sëriñ Touba yaroon gis ma dara lu leen wutale nga xam ne loolu kon di di di di lu yéeme loo xam ne doy na beneen bi ci desaat euh, nee nañ dafa mas a wax sëñ bi ne ko li ma euh, nekku ko day sa liggéey bii day li ma xamal ne yàlla nangu na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu ko sëriñ Tuubaa nangu ko mooy ne bi ko tàmbulee yàggut waaye ay jéegoom sori na lool loolu lépp kon doon ay mm, kii mbir yu yéeme bokk na ci seen diggante liñ ci mën a wax rek mooy boo demee kër sëñ Abdou Lahad fekk fa turandoo sëñ Mourtala boo ñëwee kër sëñ Mourtala tamit fekk fa turandoo sëñ Abdou Lahad ndax sëñ Abdou mi nga xam ne moom la sëñ Mourtala moom sëñ Mourtala de bi ko sëñ Mourtala bi mu ko da koo tuddi woon joxoon ko ko jébbaloon ko ko mu nekkoon këram yaroo fa sëñ Mourtala tamit mu sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou da ko joxoon sëñ Mourtala jébbaloon ko ko daan ne ko dégg naa ba mu ko gi daan ko nag boo amee boo amee ngërëmul sëñ Mourtala am nga sama ngaram nga xam ne loolu kon di taxawaay yoo am solo nga xam ne seen diggante ci fonk bu mu fonkoon sëñ Mourtala ak fu mu ko tegoon taxoon na ba da ko daan booleeg sax ay safoor nga xam ne nett li nañ ne léeg-léeg sëñ Mourtala bu fu masaan ñëw léeg-léeg indi safoor bii léeg-léeg mu indi beneen safoor léeg-léeg mu ànd ak kaneen ba looloo taxoon mu jël ab taalibe boppam boo xam ne ku ko jege la woon koo xam ne ci moom la jébblu woon mu tarbiye ko muy sëñ Abdou Salaam Gaye mu boole woon kook moom ba nga xam ne sëñ Abdou Salaam Gaye moom daanaka koo xam sax sëñ Mourtada nga ko xamee ak ku ñuy wax boole Gaye yooyu yëpp rek sëñ moo ko daan boole ñoom mu doonoon tamit koo xam ne da ko yàgg taxaw yàgg ko taxawu lool ba bi muy defar école yi ñi ngi nettali ne booba defaloon na boppam ab déclaration boo xam ne nii dafa waxoon ci rajo bi daan ne sëñ Mourtada mii day liggéeyam bii nan xam ne ak continuité la ci liggéeyu sëriñ tubaab bi lu ci waaye jàpp ak sëñ Moustapha Lo xam ne ñoo ko doon taxawu ci lu bari ci liggéey bi loolu kon doon ay taxawaay yoo xam ne nii ñëpp mënees na mën nañ koo seede ci biir loolu tamit seen diggante gis nañ ne sëñ Abdou Lahad na ko wax ne ko kër sëñ Touba yii day dama gis ne dañ koo war a dundal gis naa ne yow yaa ko mën a dundal keneen mënu koo dundal nga xam ne ndigal loola taxoon ba sëñ Mourtala la mu masaan dem di ay pekkees ak ay pir ak fu mën a dem di di di di nekk ci kër sëñ Tuubaa yooyu ngir jëfee ndigal loolu ak ko fonkoon ba looloo taxoon tamit ay jamono euh, ci kër gi ba fiñ ko fi mu fa daan nekk léeg-léeg dafa yendu ak fanaan ngir lool lépp rek ngir jëfee ndigal loolu waaw nga xam ne mooy ndigalul sëñ Abdou Lahad loolu ak noonu ma ko waxe woon nga xam loolu lépp day wane sëñ bi moomit it nim ko déggale woon ak nim toppe woon ay ndigalam sëñ Mourtala tamit doon koo xam ne moomit it yim daan def lépp ci ndigalul sëñ Tuubaa ko tegoon ndax moom gis nañ ne bu masaan di balaa génn réew mi di dem ci benn tukki loolu moom seetlu nañ ko daana dem ci kër sëñ Saaliwu ci ki fi nekkal xalifa central de Mouride dem ca barab ba bu tukkee ba ñëwaat tamit foofu lay njëkk a defaat lay demaat doo doo defaat lu muy def kon loolu lépp day wane ne lépp lu mu daan def ci ndigalul Sëñ Tuubaa la la la daan defee waaw kon yooyu yépp daal di ay mbir yoo xam ne nii li ma ci eh, eh, li ma xamut ci diggante boobu moo ëpp fopp li ma ci <laughs> li ma ci xam xam naa ne buñ ci gën a yaatal ci gëstu ci mag ñeeg yooyu moom dañ la ci gën ma mën a wax loo xam ni dana gën a yaatu lool waaye loolu moom mu doonoon diggante bu rafet boo xam ne nii ñoom sàmmoon nañ ko rafetaloon nañ ko doon ko dund ci dundin wu rafet di ñaan sunu boroom mu fayal ñu sëriñ Abdou ci lim liggéeyal yoon wi liggéeyal ko jullit ñi liggéeyal ko taalibe yi mu doon daal loo am solo loo xam ne xam naa ko ci doon wax da ngay wax fii ba déwén waaye li ngay wax moom du jeex waaw kon daal ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di yéene di leen sant bu baax ci li ngeen def moom dundal lool la bu baax a baax nii bu ngeen ko dee def ci mag ñu ne rek danañ tax ñi gën a xam mag ñi niñ doon dundee mbokk gi ak niñ ko doon sàmmee ak fiñ ko tegoon dana tax tamit xale yi bu ñëwee mën a xam ñoom it fi ñuy gën a teg seen tànk ba man koo gën a rafetal jërëjëf